campagne bi ñu nekk nii nekk na campagne bu métti parce que am nañ lu ëpp 47 listes yu war a contribuer euh, ci élection yi wala jongante ci seen biir bokk na ci liste yooyu coalition bi ñu bokk muy coalition gagnante Wattu Sénégal donc ki nekk euh, ca kaw euh, jiite liste boobu mooy le président de la République Abdoulaye Wade képp koo xamante ne ni da ngay wax te yàlla tax war nga mën a ko accepter ni soppi na xar kanamu réew mi bu baax a baax. dañuy euh, wax penc ndaw réew mi mooy cadre bi euh, nga xamante ni ci la député yi di exprimer wu. waaw comme cadre boobu ci la député yi war a exprimer wu ñu toll ci période bu war a choisir donc yaakaar nañ ni war nañ cee jox importance bu baax xool lu baax ñi ñuy fan war nañu yóbbu ci penc ñan parce que. Euh, diirub ay at a ngi nii koo gis boo ko laajee danaan assemblée nationale amuñu benn njariñ parce que li ñu war a taxawal réew mi taxaluñ ko réew mi donc boo gisee aussi ñuy wax douzième législature mu législature bi gis nañ ni aussi sénégalais yi ñaaw nañ ni mu demee ak li xew day day dem nañ ba ni moom mooy la première législature depuis que le Sénégal est le Sénégal un euh, Sénégal un pays euh, indépendant donc loolu moo fa am moo tax euh, cette fois ci ñuy jaar ci occasion pour ñaax nit ñi pour du leen expliquer d'abord te dañoo war a fal téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom muy 165 députés 165 députés yooyu ñu leen di fal ci ñaari liste am liste boo xamante ni département bu ne par rapport ak population bi ni mu toll dafa am nombre de députés bu ñu leen di jox fu mel ni département de Diourbel bii ñu nekk donc euh, population moo ko poussé mu am ñaari député boo demee Mbacké parce que Mbacké moo am Touba population moo ko poussé mu am 5 députés boo demee Dakar bi capitalu Sénégal département de Dakar population bu fa nekk ñu fay yeewoo bari moo ko poussé bu am sept am na yeneen département yoo xamante ni nii aussi euh, seen lim demewul noonu ñoom benn député rek la am non ñooñu ñooy séddoo li ñuy wax quatre-vingt-dix députés mooy euh, juróom-ñeent fukki député am yeneen fukki député juróom yoo xamante ni sénégalais yi nekkul biir Sénégal ñu leen di wax les sénégalais de la diaspora ñoo ñu war nañoo fan fukki député ak juróom donc buñ ko tegee ci 98 cent 105 député téeméer ak juróom léegi li ci des muy juróom benn fukki yi buñ calculer ba pare ki lañ leen di fale muy liste national nga xamante ne nii c'est une liste proportionnelle kenn ku ci nekk li nga am ci ay voix loolu ngay am ci ay député parce que bu ñëpp voté li ñuy wax les suffrages valablement exprimés mooy vote yi yi nga xam vote yu baax yi dañ leen di calculer ñoom ñëpp génn nombre de bi nga xamante ne moo ci am donc bu ñu jëlee nombre de député boobu ñu war a partager wu loolu looloo tax donc ñu ni 60 euh, députés yooyu ñu partagé wu dañuy xool par rapport ak liste nationale bi créé le quotient électoral parce que dañuy jël le nombre de suffrages valablement exprimés ñu diviser ko part par 60 mu joxe quotient électoral bu ñu ko séddalee kenn ku ne par rapport ak lim bi li ci des nag bu fekkente ni bari na mën na ay député ñu séddale ko ñi nga xamante ni matale wuñu quotient électoral bi donc loolu la ñuy wax ci tubaab plus fort reste donc lañ koy jëlee ba député yi mat léegi nag. ci département yi raw gàddu la raw gàddu mooy képp koo xamante ni yaa ëppale ay voix rek même bu doonee benn la wala ñaar xamal ni lañ fa ay xëccoo ci limu député yaa koy jël. donc Diourbel gi képp ku fi jiitu rek ñaari député yi fi am donc yaa koy jël parce que euh, yaa yóbbu ñaari si ñaari nit euh, ca assemblée nationale. moo tax bu ñuy tànn ñu war a xool bu baax ñu ñuy tànn surtout par rapport ak mode de scrutin nga xamante ni boo dee xool bu liste yi bare mën nañ day am ci ñun gën a favorable mais comme. réew mi aussi ñu ko yor jàpp nañ ni fañ ko waroon teg teguñu fa su yaakaar ni donc mën naa génne ci opposition parce que opposition bi nekk na ci actuellement position bu baax d'ailleurs li ñuy wax ay sondage mooy euh, euh, seet bi ñuy seet bi natt xool ba xam nit ñi nan lañ duggee ci xolu askan wi yaakaar nañ ni sondage yooyu wane na ni opposition bi dana am euh, pourcentage bu élevé ci élection yi am na ñu dem ba ni quarante ci quarante cinq départements yi am Sénégal vingt deux yi opposition bi moo koy gagné te yaakaar nañu aussi lool mën naa nekk parce que boo xoolee situation Sénégal am na dëkk yoo xamante ni yaakaar nañu ñoom opposition mën na koo gagné Diourbel na cee bokk et loolu mooy li nga xamante ni moom lañ dëgmal message bi ma ci teg nag mooy message bi may lancé Diourbel waay mu jëm ci président de la République Abdoulaye Wade parce que kenn ku ne xam na ni euh, ku ñuy wax patriote rek Euh, yaakaar naa ne ci moom nañ ko war a jiitee parce que il faut être un grand patriote pour s'opposer pendant 26 ans parce que ñaar fukki at ak juróom-benn nga nekk ci opposition dafa metti donc muy opposé wu di taxaw réew mi di ko xeexal ba démocratie tey am ci réew mi yaakaar nañ ni li ñuy wax isoloir muy mbañ gàcce bu amee tey ci élection c'est grâce au combat de de ak ñeneen ñi mu am àndaloon ci xeex boobu tey jii bu ñu demee ba ñu le scrutin secret maanaam mën ngaa voté ba génn ñibbi sa kër te duñ xam kan kon yaakaar naa ne bu ko mën mënee def rek te benn gàcce du la ci fekk yow mi voté donc ça veut dire que loolu war nañ ko ko war nañ ko gërëm donc pour une dernière fois ñu gis ni cette fois ci kooku ñuy président Abdoulaye Wade donc nekk secrétaire général national du parti démocratique sénégalais moo jiite liste boobu maanaam mooy tête de bi yaakaar nañ ni pour mën koo rendre hommage ñun sénégale yi donc war nañoo fexe ba liste boobu ñu voté ko pour une dernière fois pour jox ko majorité. parce que combat bu mu mënee depuis plusieurs années donc war nañ ko ko récompenser par une dernière fois